Oui, oui, salam, salam, salam, salam, salam. Apparemment, ils ont coupé Internet au Sénégal. Partagez le partagez coupé Internet du Sénégal. Ça chauffe partout, effectivement, ça chauffe partout. Donc, mes live rapidement pour ñëpp leen prisonniers jubali place de l'indépendance pour am suñu indépendance pour la première fois musuñu am indépendance dañu ñu doon nax li ñu doon wax yëpp dara du ci dëgg indépendance indépendance 4 avril fête de l'indépendance lépp ay tappale la indépendance bakkan moo koy joxe indépendance xeex moo koy joxe indépendance ay ndaw ñoo koy xeex dañ ko war a xeex suñu maam yi xeexuñu ko suñu baay yi xeexuñu ko ñun ñoo ko war a xeex Sénégal dafa war a am xar kanam gu bees foofu lañ toll ku parewul pour dee bokkoo ci ku nekkul patriote bëggoo réew mi Ousmane Sonko yàgg naa wax lii mu yee ci gone yi dafa fekk ñu bari am ko ci ñoom ñenn ñi mu yee ko ci ñoom te mooy bëgg sa réew muy almahabba nga xam ne dafay nekk loo xam ne yàlla daf ko digle ñëpp digle ko yow sallallahu alayhi wasallam digle ko ñu bëgg réew mi tey ji ñun ñëpp nekk ay doomi réew mi bëgg réew mi baax yàlla ne na bëgg seen réew na ngeen sàmm seen réew Ousmane Sonko ñëw nag tàggat ci ñu baree baree baree bari soo suy wax ñu naan day wax day sóob day lii day laa usman Sonko wax naag waa tubaa waxnaag waa Tiwaawan waxnaag waa Njaasaan waxnaag waa Sénégal waxnaag waa France wax naa wax a wax a wax ba ma ne ko bàyyil wax ji ba ma ne ko bàyyil wax ji wax na ba tàyyi ne leen man duma Khalifa Sall man duma Karim Wade man moytu leen ma man baleen ma Macky Sall ragaluma la Macky Sall bàyyi ma ndax Macky Sall man ku ma song daanu Macky Sall man yàlla kott laa wéeru damaa dem ba ci yàlla ma jox ko sama bopp gannaaw ba ma paree ci yàlla te xam ne yàlla du nit ma xam ne yàlla mënoo koo am ta amoo nit ñi ndax yàlla nit ñi la am nit ñi yàlla la ñu am ba ma dénkee sama bopp yàlla xam ne yàlla nag li koy jëmmal mooy doomu aadama yi ma xool àdduna bi xool am gisuma ci kenn ku ma doy ku may dénk sama bopp ma wëlbati ko gis ci sénégalais yi ma ne ñan ci sénégalais yi mu ne ndaw ñii ma gis sénégalais yi nga xam ne am na lu ma def seen bopp yi bañ dugg yi su ma leen dénkee sama bopp daañu ma sàmm mu ne yéen sénégalais yi gannaaw yàlla yéen laa dénk sama bopp ma yaakaar na woon dafa juum mu wax ko ma ah billahi dégg nga sa bopp ñoo xam ne bis buñ la bëggee te rend doo gis kenn dégg nga sa bopp ñoo xam ne duñu xeex dégg nga ño bopp ñoo xam ne dañuy bàyyi ba nga lott ñu soog a jóg nga sa bopp ñoo xam ne ah Ousmane Ousmane ñi nga dégg sa bopp ah mu ne ma def naa ci ñoom confiance am naa ci ñoom confiance ma ne ko waa baax na nañ dem waaye nag tey Ousmane yey na ma ndax man musuma njot na Sénégal daan jóg musuma koo xalaat dama jàpp na Sénégal yi dañ ko seetaan ndax Sénégal dañoo yàgg seetaan de waaye nag njàngat mu bees ni ngay am ci lii xew-xew bii tey nga xam ne Macky Sall fi mu toll nii ay waxtu moo des mu wàcc ay waxtu ndegam génnul Sénégal jamono yi may wax ni mi ngi préparé pour génn su fekkee génnul ba noppi ña ngay daw ñëpp kenn ko ne yaa ngay daw soo am làmmiñu rëy yeeg télévision yeeg ñu doon Sénégal di saaga Ousmane Sonko gi dafa violé dafa aji saa rek loolu lépp jeex na fi mu toll nii ñëpp ngay daw seen kër yaa ngi tàkk télé yi ña ngay coupé ña ngay dagg internet ba avion yi wàccatuñu Sénégal ña ngay dérouté touristes yi bu kenn demati avion yi waroon na wàcc Sénégal Air France ñëpp ña ngay wë ña ngay wëlbatiku kenn dootul wàcc réew maa ngay tàkk Adji Sarr pour kan Macky Sall lu tax Ousmane Sonko moom lañ bëgg a tum rankon Ousmane Sonko mi nga xam ne waxoon naa leen ne leen garab yi garab yi garab yi garabu Sénégal yi Ousmane Sonko lañu àndal jën yi nekk ci géeju Sénégal gi Ousmane Sonko lañu andal picc yi Ousmane Sonko lañu àndal ngelaw liy sab Ousmane Sonko lay sab nit ñi Ousmane Sonko lañu àndal suuf si ngeen teg seen tànk yi Ousmane Sonko lañu àndal moytu leen bajo bi moytu leen bàjjo bi bàyyi leen bàjjo bi bàyyi leen bàjjo bi ngeen tër yéen ñëpp ngeen seetaan ko ñun ñu ànd ak moom yàlla ànd ak ñun dañuy am ndam ci li bu ngeen xeexee bu ngeen xeexul dañuy ànd ak dañuy am ndam ndax yàlla buy xeex tey am ndam yalla musta xex muy échoué insha allah rabbi lu mu guddi guddi guddi tey daañu dugg ci palais bi ma ngi leni wo woo yéen Dakar tàmbalee ko ci buntu Ndakaaru ba jëm ñaajo jëm ñaajo la koy tàmbalee Bargny Tëngéej Mbaaw Kër Mbay Fall dugg dugg dugg dugg dugg nak dugg nak dugg nak deng mam jëm Kër Massar département Kër Massar département wu Pikine département wu Tëngéej yeen ñëpp grande marche lu mu guddi guddi bu len ko tàyyi jog len ngeen dox teg sen tanki jappante mag ak mag ngeen dox jubali Dakar jubali place de l'indépendance panas, lañuy déclarer suñu indépendance jóge fa dugg ci palais bi génn Macky Sall jox ko askan ñu xol ñu koy def jog len yeen ñep lu mu guddi guddi tay amul na la tay bisu penj la tay bisu xare la tay la ajjuma ci ngoon borom xam-xam ne ñu ci ëpp ne nañ yàlla buy tukkal àdduna ajjuma waxtu wii la koy tukkal waxtu wii la àdduna di na nañu fexe tey ba tukki àdduna àdduna Macky Sall àdduna Mariam Faye Sall àdduna yi Antoine Diome àdduna yi Ndeye uh, Oumou Diallo mi jur Mariam Faye Sall Antoine uh, àdduna yi Moussa Fall Antoine uh, àdduna yi Bassirou Gueye ñoom ñi nga xam ne ñoo teg seen i complot ñoom ñu taal Sénégal ak képp ku ñu ànd nañu fexe ba tey ci ajjuma gi tey ji ngoonu ajjuma gi nga xam ne nee nañu bis bu yàlla di lem àdduna bi bis bu àdduna tukki ajjuma ci waxtu wi lay tukki ñoom ñi def lii nañu fexe tey ci waxtu wii seen àdduna tukki jóg leen yéen ñëpp ñu dox jëm classe de l'indépendance jóg leen ñu dox jëm ci biir réew mi jóg leen ñu jox ñu jëm Ndakaaru dem jàpp ñoom ñi ma la limal nga xam ne lu yàq ci mi ñoo ko yàq sàcc nañu alal ji sàcc suuf si sàcc alal ji jaay cocaïne jaay dorog nappaaje ay caga sàcc alal réew ku yëngu ñu tëj ku yëngu ñu dóor rey ñëpp ba ci alkaat yi bàyyi wuñu kenn jàpp médecins yi tëj jàpp journalistes yi tëj jàpp politiciens yi tëj jàpp baykat bi tëj jàpp sàmmkat bi tëj jàpp nappkat bi tëj jàpp baadoole bi tëj jaay ko jaay sa tëf jamono boobu Macky Sall nga ci biir Marème nga ci biir Antoine Diome nga ci biir George Diagne caga baa ngi ci biir Marème Faye Sall caga baa ngi ci caga baa ngi ci biti ñëpp ñu ngi ci biti bi jaay foo euh, bi mi ngi ci bi trafic cocaïne mi ngi ci biti ñoom ñëpp ngi ci ay doomi xaraam ndax lan police gendarmerie ku wax ñu xoxotal ku wax ñu tëj yor seen justice a ngi ci bisi te bu soobee jeex na ba noppi jóg leen jóg leen ñoom ñen ñë yéen ñëpp bi tey penku bi du màkk de tey àjjuma ji penku bi pale la fu waay jublu tay ki Sénégal na nga ci palais fa jox rendez-vous général may wax ak internet de ñu couper ko ñu ko coupé liñuy wax duguna ci yi internet bi liñuy couper. nekkul ci sama wax ji liñuy couper nekkul ci sama wi liñuy couper mi ci xel yi ak c'est fini Mon leena musu ba génne Ousmane Sonko ci xelu nit ñi mënu leen a muusa ko macaat ba génne Ousmane Sonko ci xolu sénégal yi mënu leen a muusa ko macaat ba réew mi duñ ko teg ci loxo Ousmane sunko ndax réew mi ñoo ko moom ndax ñun ñooy askan wi ñun ñooy njaboot gi ñun ñooy majorité bi te ñooy ndaw ñi mosu leen a sédd ba sédduñu mosu leen a dem ci palais bi di réunion ba wooñu mosu leen a wax ay euh, dialogue ba ndaw ñi dem fa bu ngeen dagg suuf ndaw ñi bu ngeen nappaage seen i jeeg ndaw ñu bokkuñu ci bu ngeen di lekk seen i ganaar ndaw ñu bokkuñu ci bu jox seen i biir màkk ndaw ñu bokkuñu ci bu ngeen di dem Touba ndaw ñu bokkuñu ci bu ngeen di dem Tiwaawan ngeen def seen i noos ndaw ñu bokkuñu ci bu ngeen dagg suuf si di ko séddoo ndaw ñu bokkuñu ci lépp lu réew mi am comme alal ak lu ñuy joxe bu ngeen ko séddoo yéen màggat yu xub daas yu xub yu bon yi ak nguur gi yéen koy ànd séddoo ko sànni ndaw ñi ci àll ba ndaw ñi kenn luxusu leen yéen ñi sàcc àll réew mi yéen a jur ndaw ñi jur ndaw ñi jàppalewul leen taxawul leen lu baax ci réew mi ngeen jël fàtte seen doom yi seen doom yooyu tey ñoo jog fipp te bu fi jóg taxaw dañ lay rendi xatit bàyyi bu la juree bu la juree ci yam ndax deful dara tey nag dañuy taxaw def suñu révolution ndax comme yéen defu leen ko ñoo ko defal suñu bopp pour lan tabax réew mi tabax ko ci njub tabax ko ci liggéeyam tabax ko ci bëggante tabax ko ci jàppalante tabax ko ngir ñun waaye ngir génération future yi nga xam ne ñu ngi ñëw muy suñu doom yeeg suñu sët yi ëllëg yàgg nañoo xeex xamoon ngeen daañu am ndam ndam li soreetul ay waxtoo ki ñu jël réew mi teg ko ci ay loxoy jub Macky Sall ngeen na da Usman Sungku Ousmane Sonko kaso da ngeen ko daan daañu xam ndax Ousmane Sonko mooy tëdd kasso wala yow ya, Macky Sall yaa tëdd kasso Ousmane Sonko du tëdd kasso jamais du dugg kasso Ousmane Sonko li man ma leen ko wax bala Ousmane Sonko tëdd kasso rew mi tak jepp ban kasso ngeen koy duggal Ousmane dafa xat ci ban kasso ngeen duggal Ousmane Sonko kasso boko bu dugg mu dajjo boko ko yóbboo bes waa bes dajji kasso bi génn ko campé ñu dajji ko génn boko boo ke yóbbee ya wa ke dajji kasso ba ko Ousmane Sonko xajul fen xam nga fan la xaj Ousmane Sonko fi mu xaj Macky Sall sa loxo jotewu yéen ñu bañ Ousmane Sonko ak yen sëriñ si bañ Ousmane Sonko ànd ak Macky Sall fa ko yàlla làq seen loxo wu ko yàlla dafa ubbi xolu jaam ñi ndax yàlla nee na maa leen gën a jege seen xol yi ubbi xelu sénégalais yi xool ji ñi ëpp ki sénégalais yi mu ubbi seen xol yi làq fa Ousmane Sonko foofa seen loxo jotu fa mën mën ngeen a tëj mën ngeen a mën ngeen a xooqatale waaye mënu a ubbi xolu jaam ñi bëcc Ousmane Sonko génn ko bipp sànni ci àll ba mënta nekk xol yooyu nag tey ñoo tàng tàng jërë jërë jër ba loo ci teg mu togg ko ndax lan tàng jëp ko tax ku ñu sega ñu làkk la bu ñu kenn jege bu ñu kenn woo bu ñu kenn tegal bu ñu kenn ki lii may wax nag ooma ci ndey ooma ci baay ooma ci maam ooma ci nijaay ooma ci rek ooma ci mag ooma ci jabar ooma ci doom képp koo xam ne yaa ngi sama kanam dama wax loo xam ne dafay wuuteeg lii may wax di ko xeeb dama lay écraser dox parce que sa li ma jëm xam naa ko li may xeex xam naa ko xam naa njëriñ la ëllëg muy njëriñu Sénégal gépp képp koo xam ne àndoo ki na la ndax suñu yoon wi ku ki taxaw ñëpp ñu ñu tamponné la te suñu xel yi ñu daw ku ñu tamponné nga xam ne ay ponkal ay ponkal yuy bay bési tamponné na leen caaxaanuñu yàgg nañoo wax yàgg nañoo wax yàgg nañoo wax ngeen naan dañoo dof dañoo mën a saaga dañuy xas dañuy saaga suñ kilifa diine yi dañuy patati patata ana seen kilifa diine yi dama leen di laaj ana sen kilifa diine yi tontu leen ma ana ñu ana seen yàlla yi seen kilifa diine yi ana ñu ana seen baatin yi ana seen may yi ana seen dayo yi ana seen château yi ana seen yàlla yi seen yàlla yi ana ñu nañu génn yàgguma ko wax lu ngeen ma yàkkul kuy gëm na nga gëm yàlla kuy wóolu na nga géelu yàlla kuy waqilu na nga waqilu ci yàlla man da foofu laa wér mbindeef muy taxaw ci kaw suuf ragalu man du sëriñ du président du kenn ki ma ragal mooy ki ragal yàlla ku reglu yàlla ragalu ma la naa fekk bu man fu ma fekk ab naa fekk dama koy ruux sama sama tabia mooy bañ naa fekk du du du mbokk du jabar du doom du sëriñ du kenn dañuy am ndam insha allah rabbi ndax yàlla ñun la àndal ndax ci dëgg la ñu dox ñun ñooy def ngir yàlla yàlla day ànd ñun par force ndax yàlla bu ñu bàyyee ñàkk lépp ndax ñun ci lu baax lañu dox yiw lañu dox ak lu yàlla gërëm te loolu la yàlla bëgg day ànd ñun ñun yàlla dañ koo poñe ne ko da ngay ànd ñun lu parce que li nga bëgg ci lañ ne mënuñoo bàyyi di ànd ak ñeneen ñoo xam ne nekkuñu ci li nga bëgg moo tax mu ànd ak ñun te dañoo am fit mu aar ñu ñuy xeex ku fi taxaw dañuy xeex ak yow moo xam sëriñ nga moo xam politicien nga dañuy am ndax réew mi moomu leen ko ngeen ko kidnappé toog di ko séddoo ay plus de cent ans ngeen toog séddoo réew mi bàyyi gone yi ñu tumuraanke ku juddu tumuraanke da ngay judd ci tumuraanke màgg ci tumuraanke dégg nga man euh, màggat ci tumuraanke dee ci tumuraanke lii mooy li Sénégal beral ay doomam ay génération ay génération ay génération ñooñu det da ngaa yaru da ngaa tegginoon respecté wu mag ñi amoo kilifa amoo lii patata lépp ay fen la kilifa amu fi kilifa mooy ku am 18 ans kookoy kilifa li des yëpp ay fen la ay naxay la mag ci kaw jël alal gi di ko lekk jigéen ju baax gi dañu takk nappaaje jur ay doom sànni ci mbedd mi lekk alal ji lekk ganaar bu ñu dee bàyyi fi ay boreke ay kenn xamul ñu miraas kii jël ñaar fukk kii jël fukk dërëm njaboot ga reyante ñu xelante kii di sëriñ fii kii di xarafe kii daan ko liggéey naa ñoo bokk bàyyi ñoo seddoo woon lee moo alal ji ngeen jëwante reyante te yéen ñu fi nekkee woon nappaaje rek gi góor jigéen rek la ñu bëgg nappaaje ku ci am xaalis ku ne takk jabar teg ku ci am benn toog boo demee am tuuti takk beneen boo amaatee beneen takk ñoom ñu ëpp nag ñi ci ëpp jigéen donc jigéen donc nappaaje rek doori ndig réew mi dañ koy soppi ñun gone yi dañoo am doxin yu bees yu méngoog suñu jamono bii nga xam ne nekkul seen jamono dañ koy xeex a yéen génn paaki ak jaasi reyante ak yéen ngeen butti ñu wala ñu buti leen dañuy reyante deret réew mi ki deret lañ koy raxas incha allahu rabbi dañ koy ngéntewaat ki deret par par force di wax Sénégal gépp nañu génn génn bii may wax Ndakaaru nii parce que palais bi moo nekk Ndakaaru su palais bi nekkoon Kaolack Kaolack lay doon su palais bi nekkoon Ziguinchor Ziguinchor lay doon su palais bi nekkoon Ndar Ndar la palais baa ngi Ndakaaru moo tax ñuy wax li ëpp ci Ndakaaru waaye lii may wax ci Dakar du Dakar rek de yéen région yi Sénégal yëpp les 14 régions du Sénégal, les 46 départements du Sénégal, les 557 communes du Sénégal, Yin lay waxal en tant que seen général depuis l'étranger des Akhenaton cëg leen ngeen génn yéen ñëpp ben par ben ngeen dox jëm fi ngeen war a jëm bu fekkee région yi la dem leen ngeen attaqué gouvernance yi ngeen génne gouverneurs yi su fekkente ne département yi la dem leen ci préfecture yi ngeen préfet yi ci seen dëkkuwaay yi ci préfecture bi ngeen génne leen ci biti jël ko occupé ko dem leen su fekkente ne ci ay commune la ngeen dem ci fi nga mooy gendarmerie ya fa nekk ak maire ya fa nekk yi nga xam ne ay maire Benno Bokk Yaakaar la ñu ay ay maire Benno Bokk Adji Sarr ay maire Macky Sall ngeen génne leen ñoom ñëpp nangu mairie ba toog ca jël lépp te ngeen bañ a taal dara ci mairie yi waaye ngeen toog ca mairie yi génn leen ci biti commissaire yi ngeen dàq leen ci biti police ngeen dàq ci biti gendarmerie ngeen dàq ci biti préfet ngeen dàq ci biti gouverneur ngeen dàq ci biti jël place yëpp toog ci parce que peuple bi moo ko moom askan wee ko moom ñun ñoo ñu nekk Ndakaar ñu ngi jubale ci palais bi génn Macky Sall région yi na ngeen jël fépp fu préfet nekk fu gouverneur dëkk fu sous préfet nekk foo xam ne commissaire moo fa nekk ak gendarmerie dem leen ngeen attaqué leen ngeen jël ko génn leen ci biti lu ngeen ci mën a taal ngeen taal ko lu ngeen ci mën a occupé ngeen occupé ko en attendant ñu dugg ci palais bi jàpp seen bandi salte bu mag bu mag bi nga xam ne mooy Macky Sall bandi bi nga xam ne mooy chefu mafia bi buñ ko téye ñoom ñëpp dañ daanu ñoom ñëpp la ñuy jugé te bu kenn génn réew mi nag ñu dëkk ci frontières yi da ngeen surveiller frontières yi ku oto bu ngeen gis na ngeen ko arrêté le pouvoir c'est nous la loi c'est peuple yéen peuple bi yéen ñu dëkk ci frontière du Sénégal yëpp maa ngi leen di jox ordre seen général na ngeen surveiller frontières yi avions yi bu benn avion jóg frontières yi bu kenn jaar nañ tëj bu kenn dugg bu kenn génn ba ñu pare ci li ñuy def yàggatul 24 heures benn bis du ko man ñu jël réew mi atte leen ñoom ñëpp daw bu kenn génn tëj leen frontière yëpp gañe nañu ba noppi ndax yàlla ñun la li ma leen di wax mooy li am nañu foncé Ndakaaru ba ci kanam incha allahu rabbi